asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ku si nekk ci seen tuur ak seen sant maa ngi julli si yelent bi sallallahu alayhi wa salaam sant gërëm samay ñaari waajur sant leen bu baax yéen ñi nga xam ne yéen ñëpp yéen a bàyyi seeni yitte ñëw toog fi ma jéggalu leen massawu leen ci temps bi ngeen jël ci coono bi ngeen def ak kilomètres yi ngeen def yépp pour ñëw yegg ci sama kër tey fii ñuy toog ak man yendu ak man sagal ma ci kanamu Mbuur ci kanamu Sénégal ci kanamu àdduna awma seen fay yàlla na yàlla fay ma commencé remerciement yi si d'abord ñi nga xam ne ñoo toog ci présidium bi commencé ko par sama frère sama xarit sama président monsieur Meissa Ndiaye Meissa luñ naan aux Zambiens la valeur n'atteint point le nombre d'années dafa nekk nit koo xam ne moom dafay wax ci man baax mais moom moo ma gën ndax bu muy jiite ASC jant bi ñëpp dégg nañ ko ASC bi ko fekk ci këram ne ko yow yaay jiite ASC bi lu mu ko jiite yaakaar naa ne ëpp na vingt ans mu jugi pour mu daw boobu moo nekk directeur plein sud dafa teel a am ay responsabilité mais dafa teel a nekk un responsable mu nekk koo xam ne ku mbuur respecté la ku mbuur xam la mu nekk tey looloo ko permettre mu nekkoon président euh, au niveau de région de Thiès CNG tey moo nekk vice président CNG loolu rek ça veut tout dire su bàyyee ay mbiram man invité wu ma ko sax moom moo gis affaire bi rek mu ne ma yëg naa lu xew man sama frair ga si loo nekk rek nekk naa ci. ci nu ma ko waxee ñu bëri noonu lañ ma ko waxee mais maa ngi lay remercier grand di la ñaanal si sa modestie si sa teyaay maa ngi lay remercier ma remercier Jax production. wax naa ko sànq bu ñu toogee dafa nekk un exemple pour la jeunesse sénégalaise mais pour la jeunesse africaine parce que actuellement on parle de mondialisation euh, globalisation ak mondialisation boobu ñu jëm dañu soxla ay références dañu soxla ñuy apaiser dëkk bi dañu soxla ay jeunes yuy def loo xam ne de développement te tubaab dafa définir développement dafa ne le développement c'est un processus global qui permet à une société de vivre dans de bonnes conditions. Et que ces conditions peuvent être injurées dans des indices comme la répartition des ni le niveau de vie, la formation des individus, la santé, la fécondité et l'espérance de vie. Donc, yow Jax da nga nekk si loo xam ne état moo ko waroon def nga koy def di jàppale jeunes yoo xam ne xëy na suñu leen bàyyi woon mu metti wala mu ñaaw wala agression bi nekk fi wala insécurité totale nga ñëw permettre leen ñu am espoir parce que on a besoin de dream de rêver rêve boobu nag yaa ngi koy indi si jeunes africains yi yaa indi si jeunes sénégalais yi donc dañ lay encourager di wax ne ñun jël nañ engagement si lépp looy defati daañ nekk sa wet te yàlla rek tax donc loolu neen la ko wax dinañ ko def si kàttanu yàlla ma remercier aussi koo xam ne référence la aussi si jeunesse sénégalaise bi muy un animateur boo xam ne il est bu ma koy seetaan toujours wal fajri si depuis muy démarré foofu du ma tardé émission parce que non seulement am na talent non seulement tey na mais il est extraordinaire may leen ko loxo suñu animateur wal fajri Pape Alioune Pape yow boo déplacé woo ba ñëw sama kër man c'est un honneur man yaakaar naa ne tey ku la xamul ci Sénégal dégg na la donc ñun ñu ngi juste am fierté parce que soo waxee lu ñu naan mënoo wax lépp ça veut tout dire ça veut dire de choses sama xarit la yaakaar naa ne vraiment c'est quelqu'un qui parle très bien donc quand j'ai l'écouté tout à l'heure j'ai peur de prendre la parole je me suis dit que <laughs> c'est très difficile de parler derrière lui parce que quand même il maîtrise le verbe Balla vous avez notre respect et notre considération et que jàpp naa ne Sénégal am nañ yaakaar ba léegi ñu gisee des jeunes yoo xam ne ils ont l'art non seulement de parler mais ils ont aussi l'âme et le bien-être donc on te ñu ngi lay ñaanal fi nga jëm yàlla na ko yàlla encadré yaa xam li nga bëgg yàlla defal la ko di nuyu aussi Ami Collé moom moo waral li yëpp Ami nekk nga nit koo xam ne nit ku baax nga mais nit ku am ambition nga euh, bi nga amee mbir bi ba xalaat ma si lépp li nga xam ne yaa ngi koy def yaa may bàyyi xel am na benn jot nag aw moon jot parce que dañu nekkoon ci élection yi ma nekkoon candidat ci élection mairie yi fii donc euh, période boobu aw moon jot beneen période bi aussi buñ ci jugee dama nekkoon aussi si yeneen mbir mais tey la yàlla dogal boobu léegi yaakaar naa ñu toog mais doo ko rëccu le choix bi nga xam ne def nga ko si ñun euh, doo si am gàcca si kàttanu suñ borom donc maa ngi lay remercier yow ak sa staff yëpp euh, jax juumul jax juumul parce que yàlla dafa am lu mu def si jigéen mooy soo bëggee say mbir baax boo si boolewul jigéen yi sa dara du baax hmm. donc kenn nga si ñun et que porté naa la si sama xol donc ñu ngi lay ñaanal yow tamit fi nga jëm yàlla na la oyof te sant naa la bu baax gërëm la donc ñaanal nañ la ak staffu journaliste yi ngeen àndal yépp donc yéen xam li ngeen bëgg yàlla na ko yàlla defal voilà tey nag si combat bi xam naa ne dafa am nouvelle bu am solo bu ma leen bëgg waxaale dama am mag mu tudd maa Ousmane Ndoye nekk kilifa nekk ku baax dëkk yoof ñu bokk lu ñuy def yàlla dogal na waroon na nekk tey yàlla def ne dafa dem dafa dafa voyager parce que dafa waroon fanaan si fii ak man benn voyage bu ñu waroon defaale tamit man diggante bi am kilifa réew boo xam ne dafa ma woo parce que mënu ma dévoiler affaire yenn termes yi parce que c'est un peu kii mais ñu nekk fi xam nañ ne dañu am ay liggéey yu ñu war a def ci yeneen réew ñu am ay protocole état yu ñuy xaar am directeur banque centrale di ñu xaar ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mënaguñ ko wax mais ñooñu dañ jox délai ñu war leen fekk ci samedi à partir de samedi war nañ jël vol pour dem régler yenn détails yi nga xam ne war nañ ko def à léegi sama mag maa Ousmane Ndoye bu dëkk Yoff nekk borom Wakaam nekk boroom Mamel nekk booru Lébu gi ah moom lay delloo après mu ñëw teewal ma donc moom donc teraanga bi moom lañ koy delloo drapeau bi moom moo koy fanaanoo teraanga bi aussi moom mët na ko si kàttanu yàlla jaraaf sax yaakaar naa ne waxoon na waroon na ñëw mais day ëpp ñoom dinañ def délégation ànd ak waa Mbour dajaloo waa Mamel waa Yoff waa parce que ñoom ñoo ñëw nii ñoo toog nii sàmba sama xarit bii toog ñoom ñoo ñëw représenté donc de sa fait mobilisation bi ni nga ko doon yaakaaree dina dina la dépassé parce que kon à partir de Dakar lañ mi nit ñi di def mobilisation bu extraordinaire ànd ak waa Mbuur yi préparé wu bootu sama ginnaaw frère muy Maam Ousmane moom nga xam ne aussi sama président la sama kilifa la ñoom ñooy ñëw bootu ci ginnaawam mu jiita donc euh, ñu nekk fa incha allah bés ba tey lépp loo xam ne yaakaar nga ko si si kàttanu yàlla di nga si gis lu wees sa njort du ma terminer te santuma sama yaay muy Fatim Diop maa ngi koy ñaanal gudd fan ndax su lépp amee gannaaw yàlla moom la ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko lépp lu ñuy def yàlla na ko teral buñ ko bëgg a teral ak luñ ko bëgg a yàlla. bu dara yàqu sama sœur yi toog fii nekk sama mag mais nekk sama xarit muy ummi Gueye ànd ak jëkkëram muse Diallo ñu koy tooj naa ko Diallo plante prof SVT moo toog nii ñoom aussi lépp lu may def dañ ma si assister du début à la fin donc bu fekkee ne remercier moo leen aussi du ma gor donc je vous remercie madame Gueye donc foofu foofu laay tëjee ak madame Gueye dama koy muy sama jabar mi Kadijatu Mbadu nekk euh, tante ci président Ali Bongo Onimba donc bokk ci famille présidentielle Gabon dund Gabon lu ëpp ñaar dund Allemagne nekk Allemagne aussi de nationalité lu ëpp ñaar fukki at donc bàyyi lépp ñëw ànd ak man yaakaar naa toogoon Allemagne gën a yomb ñëw Sénégal bi donc nekk fii di lekk lu ñu koy lekk mbaxalan <laughs> voilà nekk fii di di di góorgóorlu ak man l'essentiel si lépp lu ñuy def moom mu ngi siy jàpp maa ngi koy remercier donc di remercier sama gars yi nekk fii yëpp ñoom Mouhamed ñoom Khadim euh, Kulim Dioum Bakary sama jarbaat nga xam ne lépp lu may def moom moo may léemu moo koy ubbi bokk <laughs> tur bu théâtre am bi voilà donc su ma leen limee Dioum di lim di remercier télévision yi fi nekk muy 2 muy Sen TV muy Walfajri Wasaare TV Bantamba TV ak seen lamb TV leeral point net bokk waaw donc en tout cas yaakaar naa ne remercier nañ Petite Côte TV sama télé man am naa télé man tamit maa ko maa ko créé ah, sama directeur télé waa ngoog taala loxo Petite Côte TV donc remercier nañ en Euh, délégation bi jóge Yoff ñoom ñu ngi toog voilà ñu ngi gis ñu taaroo macha allah donc ñu ngi leen di remercier si déplacement bi depuis Dakar di leen wax ne bës bi incha allah lépp lu ci war daañ ko def incha allah Jax production donc lépp li nga xam ne war na euh, ñu dinañ ko def ba mu mat sëkk ak barke. donc euh, foofu laay terminer mooy di santaal bu baax Jax production. Euh, di santaan bu baax waa Walfajri di santaan bu baax waa 2S waa Sen TV waa Bantamba TV donc ak président CNG di sant Sambatal su ma ku ma tëb nag dama fàtte wala dama la tëy waaye du tayef ndax des fois nag nit mooy wax mais nit matul nit fi nga toll rek ngay waxee mais nit fi nga toll rek ngay déggee sant naa leen gërëm naa leen maa ngi jégalu ci guddal bi yàlla na yàlla defal ñu feetu jàmm ñu dugg si si bisimilahi rahmaani rahim génn si alhamdulilahi rabil alamin jërë ngeen jëf